sunu mamam doon ne wa bi saaxibi xaataami xaatimi lambiya fan mun alayna aouzu billahi sami alim min seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim laa xoola wala xawata illa billah mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi nuyu bu baax ñi seetaan ñëpp tabaarakallaahu di ziyaara bu baax tabaarakallaahu ñi nga xamante ni ñoo safoo seen émission di ko seetaan waaye tey nag dañoo am émission spéciale fii ci Warkha TV tabaarakallaahu muy émission waajal xadaratul juma émission bi tey tabaarakallaahu ñi ngi nii kër Serigne Fata Sarr mi nga xam ni moom la Serigne Abdoul Aziz Al Amin dénkoon xadara bi ñi ngi nii tey ci këram fi lañ defee émission bi incha allahu rabbi waaye xam nga ne duñ ci wéet ñu ngi ci ànd a jàmbaar nga xamante ni tabaarakallaahu ku tudd xadaratul juma bi xam ko ci muy sëriñ pap sille mi nga xamante tabarakallah lepp xadara bi ci loxom la tege yalla dogal moom muy jambar ci wa keur sayyiduna muhammad tabarakallah di jambar ci tag yontu yalla muhammad alayhi salatu wassalam mom la ñu fas andal ak sunu rak sëriñ Ousmane ak sëriñ Cheikh tabarakallah ñun ñu andando def émission bi waye ñi ngi ñaan yalla yalla nang ko barki sayyiduna muhammad bu ko defé inshallah rabbi dañuy bàyyi serigne pap Sylla mu dal di ak ñi koy sétane bu ko defee bu noppé rek dal dugg nak bi inshallah allah Pape lay nuyu waaw aleykum salaam Babacar ñu ngi lay nuyu di la ziar di am mbégte ci yow ci sa taxawaay ak sa jàmbaar di la ndokkeel it tabaarakallaa ci xadara bu mag bi nga xamante ni moom ngeen organisé ànd kook Alxaaji Omar Ndoy ñëpp bég nañ ci sa taxawaay rafet na yàlla na yàgg sax nit ku baax nga nuyu tabaarakallaa sunu caméraman bi nuyu Alxaaji Saliou nuyu Serigne Cheikh tijaan tabaarakallaahu daal di am mbégte ngir ànd ak yow di def émission ndax da ngay sunu wóllare di sunu xarit di nuyu it Mouhamadul Fatah Sarr mhm. ah di ñaan xadara bi niñ ko tàmbalee nii di ko démarché mhm. ak ah, waajal ko ci bisimilah rahmaani rahim yàlla na yàlla may ñu àggale ko ci alhamdulilah rabbil alamin mhm. te yàlla bu kenn tële ci barke yonent bi sallallahu alayhi sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf tabaarakallaahu alaaj Pape Sylla nuyoo bi matale na tabaarakallaahu yal na yàlla barkeel ci barke Seydina Muhammad waaye ñu jaar ci nuyu nag waa ab naam xadara Tijaan nu mu ko waxee léegi rek bu ñu waxee Serigne Fata Sarr rek tabaarakallaahu nuyu Seydina ah, Khalifa Sylla nga xam ne mooy président Serigne Khalifa Fall coordonnateur waaye ñu nuyu sunu yaay Adja Maguette Ndiaye nga xam ne ñoo jiite liggéey bi yëpp tabaarakallaahu bu ko defee alaaj Pape dañu bëgg nag nga tagg Seydina Muhammad boo taggee yonent bi nag ba noppi ñu daal di nag waxtaan ci xadara bi ndax xam nañ ne émission bi ñiy safoo Seydouna Mohamed ñoo koy bàyyi xel boo ko defee ñu bàyyi la nga wax ci Seydouna Mohamed balaa ñu dugg ci waxtaan bi. macha allah Babacar yal yàlla fay la. xanaa kon ñu nga waxee rek ñu jëfe ko. incha allah lu ci jub rek ñi xam ni tabaarakallaahu ci suñu borom la. lu ci dëng rek ñu xam ni ñunu taalibe yi la. tabaarakallaahu على النبي أجمعي أجمعين ما ربنا دائي من عما بسبيه على النبي وآله أجمعين سلام ربنا دائي من عم بسبهم وقد تواصلت يا رحمن يا شقتي يا من يندفي عن الزار والنقم على النبي وأسلم أجمعين سلام من عم بسبيهم وقد تواصلت يا رحمن يا شقتي يا من يا دافي عن أوزار والنقم سلام ربنا دائي من هم بسبيه ربي بأسمائي كالعزنى وأعظمها والأنبياء و مستسير مهمي على ونبي وأهلين أجمعين سلام ربنا دائم من وما نعم بسهبهم محمد أحمد دون معي وآسرنا نبي مرحما تن توبي ومنتهمي على نبي وآسلم أجمعين بهم زاد المواحب أسماء ورا تبع على الحروف يا منتهى الكلام على النبي وآله أجمعين سلام ونعم بسهبهم ثم المقع في شد الفائق دبتو وكسرها حواشو كون اليا بكتبهم على نبي وآلهم أجمعين سلام ربنا دائي من عما بسائبه من نيجي جاج في المام أس لجيم رفت نفي لجيم تريومي كوي سينيك باخ سينيال كوكو demal ndar demal jal jóob ba kaolax demal podor imam boo fi woo labay kalay wax as liggéey na ko te alquran ñaareel ba mooy la sunnas rasul la teg ay dëggoom jëf li mu jëf Maodo jamee fu ko Maodo xam ni day wéet mu ñaan wéet te def wéetal ndax sunna kese yombatul ilaay ya fajal ëhlana ëla xurbati ku wax ku roy tànkam yee natam yee tegeef la ko Seydil Xaaji Malik li mu daj ci dëkkal bi ci ay nattu ak ay xatal ngir sunna si muy feeñaloon aas wayoon na ko moo tax mu ne alaa yaa rasulallahi yaa afdal al wara fa haa naxnu fi dayqin lii mësul neex waxoon na ko fa haa naxnu fi dayqin walam narju farijan si wallahi walhadi li sublil makarimi moo tax xilaas bi ñu bakk léegi Maodo wax nañu kiiraay yamu doon sabaale yàlla ki wax ñu géej ya ko dogoon lëm ca sëmba way na ko singaari wax nga la xewoon ca teenu zam-zam ba Cameroon xëy sakk teen ba ngir kañaan yam ca joor way nga ko singaari wax nga nu abraha ki ñayam mhm. la ko merloo bu mu xëy ni day màbb kaaba ga la ko ca dal way nga ko singaari wax nga ñu takkinu soxnaam mhm. baayam ba abdalaay mhm. baay ba ñaani woon sëy ba jaxaay wax nu ko wax nga rasool kañ la juddoon wax ña ko doon ndokkeli yaayam bakkanam leer ya jolli way nga ko singaari wax nga ñu kañ la yaay ja faatu wax ñu kañ la baay ba faatu wax la abdoulaye ba ci alal mu doon ko singaari wax nga rasul kañ la takkoon xadija wax la mu jëloon ci ay gëléem ngir canewal xadija mawdo way nga ko wax nga giléem nga mu rayoon ci ciit ga jaam yëfa di fecci ngir xumbale ceetam nga lépp jaxaay wax nga ko wax nga ñu kañ la ko yàlla yónni woon xur wa ko jibril fekki woon a yëba jibril wàcce woon lépp jaxaay wax nganu ko wax nganu nu guddeem nga mu rañaan wuy ji ki bind asamaan yonent yaag waa asamaan nan ko teeroo way nga ko wax nga nu gàddaayug rasool wax ñu ña doon teeru rasool wax ñu ña doon wayal rasool ci biir Medina topp ko. tabaarakallaahu macha allahu rabbi alxaaji sëriñ Pape Samb tabaarakallaahu Pape bég bu baax tabaarakallaahu silla yal yàlla fay la bi jaay Seyduna Muhammad boo déggee way yi rek xam ne wayi yi ko ci xaalam ndax tabaarakallaahu dafa am way ak tabaarakallaahu ak wayin waaye boo déggee way wi xam ni tabaarakallaahu teg nga ko ci xaal way wi te way yii nag mooy way yal na yàlla barke la ci barke Seydina Muhammad sa alayhi tey xam naa ñii seetaan seen émission nabi tabaarakallaahu ci Warkha TV ñëpp bég nañu ngeen ni nga taggee Seydina Muhammad bu ko defee ñu nuyu bu baax sunu soppe bi nga xamante ni mi ngi doog a egsi muy Serigne Amdi Moustapha tabaarakallaahu moom it di jàmbaar ci xadara bi xam na dañ koy bàyyi mu nuyoo balaa ñoo dugg ci waxtaan bi ndax yaag Serigne p Sylla la tey yéen yor waxtaan wi ci wàllum xadara bi bu ko defee Amdi lay nuyu de lay ziar bu baax waaw salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñi ngi nuyu Warkha TV bi ñu jàkkaarool muy télé xadara bi di télé adduna bi di télé jullit waaye di télé lislaam ah sëriñ Babacar tabaarakallaa li nga wax léegi rek muy wayin ak way tabaarakallaa ku fi dégg kàddu yi xam ni tagg yonent bi la Euh, di ko jaajëfal alxaaji Pape Sylla yàlla na yàlla wéral baatam mm-hmm. waaye di nuyu Serigne Babacar yow it ba fii nga bëgg tele bi yàgg fa mm-hmm. yàlla na fa yegg ci daraja yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf Hamdi tabaarakallaahu nuyoo bi matal na yàlla na yàlla barkeel bu ko defee alaaji Pape Sylla dañu bëgg waxtaan ci xadara tourisme bi ñuy waajal xadara bi ku ne xam ne le 17 mars la fii ci stade Amadou bari mais lan moo koy indi ci stade xadara bi cosaanam lan la fan la jóge bay tey mu ñëw ba ci bi euh, jërëjëf Babacar laaj nga ma laaj bu am solo. Hmm. ndax am na ñoo xam ne dañu gis rek xëy rek gis xadara bi ci stade bi. Hmm. alors que demewul noonu. Hmm. xadara bi euh, boo ma ci laajee dinaa ci sawar mooy Mouhamadul Fata yàlla dafa defoon. këram gii ñu nekk nii fi mu dendal. Euh, dafa am benn waaye bu ko doon jaay mu jënd ko. bi mu ko jëndee mu dem ci sëriñ abdu ni ko dama bëggoon a tabax foofu jàkk. sëñ Abdou ni ko dinaa ñëw Fata ni ko su ma sañoon mm. da ngay yable ndax yaa ni mm. bu leen ma indil projet indil leen ma résultat mm. ci la Serigne Fata ñëwee ñu teg xeer bi bu ñu tegee xeer bi nag Fata def ci yitte ba liggéey bi àgg jàkka ji àgg ñu boole ci école daara boole ci hôpital boo xam ne médecin traditionnel la mm-hmm. ba pare tabaarakallaahu am tamit rajo ci kaw mm-hmm. ci lañ ko ubbee nag jàpp ko bisu ajjuma bi sëriñ Abdou ñëw fi ñu def xata euh, ñu def xadaratul jumaa mm-hmm. fii ci marché pënd bi CFA mm-hmm. bi mm-hmm. xadara boobu nag biñ ko defee nag affaire bi nag daal di premier jour bi Fata dafa baas trente cinq baas ma ne ko sëriñ bi yow amoo daayira amoo dara yaa nga bëgg a base trente cinq base te ñu ñu ne ci daayira yi suñu conférence duñ def loolu. Mm-hmm. ma ne sama pas-pas ci Serigne Babacar Sy. ah ñu daal di base indi sonorisation bi xadara bi kenn xajul foofu. ah après nag benn wóolareem nag fekk si ko ni ko lii daal bu mu dakk mm-hmm. mu ñëw ci sëriñ Abdou Serigne Abdou ne ko incha allah jox naa la ci ndigal. mu doxal ko doxal ko ñaari at ñetteelu at ba nag. ci terrain bi terrain bi def nañ fa ñetti at. Mhm. Euh, bi ñu demee nag quatrième édition bi nag moom lañ yóbbu stade Amadou Barry. Mhm. parce que dafa dem ci Serigne Abdou Serigne Abdou ne ko nag Fata su sunu xadara bi neex na mais xajatun foofu. Mhm. Fata ne ko jox ma ndigal ma def ko ci stade bi mu ko ah jox naa la ndigal. mu daal di ñëw nag ñu def ko ci stade bi loolu moo waral xadara bi ñëw ci stade bi Babacar. tabaarakallaahu kon loolu cosaan laa ngi noonu loolu moo indi xadara bi ba ci stade bi mm. kon tabaarakallaahu ku fekkee démb moo mën a wax moo mën a wax ci démb. tabarakallah stade bi bi première année bi ko fa def. troisième année ci bi. quatrième année bi ñëw ci bi. Mhm. quatrième édition def cinquième édition def sixième édition def septième édition. Mhm. def fa la neuvième dixième 10 onzième bi. la kon bi de sept fois. fois huitième fois kon loolu taxawaay la tabaarakallaahu kon nag ñu ngi ñaan yal na yàlla nangu ko xam nga xadara bi boo ko déggee rek xam ni xadara boo xam ne jullit yëpp ko moom damay wax ni du tiijaan du murit di xaadar waaye baat bi na fay wax ñëpp a ko muy baatu laa ilaha illallah kon nag xadara bi day jaadu képp kuy jullit bëgg jàmm ku ne xam ne Sénégal soxna na ñaan soxna jàmm war nga cee ñëw ci bis boobu muy di 17 mars bi ci stade Amadou Barry alaaj Pape Sylla loolu leen na ñu ne wax Amdy am di boo gisee xadara bi taxawaay bi mu am ak ci xadara bi nga xamante ni yéen yéen nekkee côté Tivaouane nan nga gis ak sëriñ si nan lañ ci def xadara bi ndax ñoom dañu joxe ndigal jàpp ci wala dañoo joxe ndigal rek seetaan sëriñ Fata. macha allah suñ Babacar eh, dama naan li am ndigal dafay dafa neex a defar. lu ndigal lal dafa neex a organiser. waaye nit lu ndigal lalul. du neex a lijjanti. te boo xoolee xadara bi biñ koy tàmbali. xel yi xalaatul woon ni xadara bi dina dem ba Mauritanie. xel yi xalaatul woon ni xadara bi tey dina dem ba Rosso xel yi xalaatul woon barki démb lan ànd ak sëtu na Tidiane dem Mbàkke organiser fa xadara bu difficile te ku ne xam ne ni Mbàkke njabootu Cheikhu Tidiane yi bariwuñu fa noonu waaye tabaarkàlla bi ñu duggee korog dan ni njabootu Cheikhu Tidiane yëpp ñu ngi Mbàkke kon loolu mooy réussir dëgg la te loolu nag li la koy may mooy pas-pas ak nekk ci ndigal nee naa ku nekku ci ndigal da ngay neex a ba ma doomu sëriñ Babacar Sy muy sëriñ Abdoul Aziz Sy Al Amin jël ndigal li teg ko ci loxo yi alxaaji Fata mu matale na ko ba pare yaatal ko te dama laan bu la joxee ndigal doo ko bokk ndax boo ko bokkee du yaatu waaye tabaarkàlla bi nu ko joxee ndigal li jox ko cër bi yaatal na ko yamalewu ko ci boppam waaye dafa ni képp kuy njabootu Cheikhu Tidiane waxul kuy njabootu Cheikh Seydil Hadji Malick mm-hmm. kuy njabootu Cheikhu Tidiane mm-hmm. woo na la ci bis bi comme ni ko sëriñ Abdoul Aziz Al Amin dama ni sëriñ Abdou da wax ni mbalaan mi nan ko lal ba pale mm. waaye mbalaan mi boo xoolee lu ñu ko pale mm. duñ koo wëral àdduna ndax xadara bi léegi dafa def tournée mm-hmm. foo dem ci àdduna ñi ngi lal mbalaan mi kon sëñ Abdou yéenem weesu na la mu bëggoon ndax pale rek la yemoon waaye génn nan pale dem Mauritanie dem ba ci yeneen i dëkk kon tabaarkalla ñi ngi ñaan mm. bis bii daal euh, ñi ngi ciy woo képp kuy jullit كيف كوي واخ اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله نيغ لا تي واخ خامني نك بيس بي دو بيسو الحاج فتا دو بيسو سيرن عبد العزيز الامين بيس بي نجابوتي شيخو تيال تا جامونو ييغونا جامونو ياقونا تا نجابوتي شيخي تاخاو نان بور نيان تي ريومي جام نيان تي ريومي diine boo xam ne tey képp ku ca ñëw incha allahu rabbi boo fa teewee taataan ca lan fay ñan yàlla mën na def ci réew mi jàmm ci sallallahu alayhi wa sallam am na jërëjëf boo déggee kàddu yi nga xam ne kon Serigne Fata am na taxawaay am na ñaan am na digal waaye am na taxawaay ndax xadaratu jumaa yi léegi dañu dem ba Richard-Toll dem ba Gaaya dem ba Mbàkke ak yeneen dëkk yoo xamante ni tey kenn dégg ko woon waaye Serigne Fata fexe na ban lal fa mbalaan ma di def xadaratu jumaa di def wasifa loolu nag taxawaay la ñaan la waaye taxawaay la kon nag li nga wax léegi ne Serigne Fata bokk ko daf ko yaatal loolu mën nañ ko gëm ndax xadara yi tey foo dem yaa ngi ko fay dégg am na Moussa léegi xadara bi fi mu toll nii fi mu toll nii dama ndax yéen ngi def démarche yi put ngeen pour def démarche yi ci walum kilifa yi ndax yéen ngi juk pour seeti ñi nga xamni ñoo njabootu serigne Hadj malik njabootu serigne Abdou njabootu serigne Babacar ak fan ngeen toll ak ñom ci jotaay bi wa serigne Babacar da nga ni fi mu toll ni waaye di fi mu toll ni mm-hmm. ndax bo xalé bi hadara bi mm-hmm. euh daaw laluñu basang yi denc depuis bobu ba légui basang kon nga xamné hadara bi mm-hmm. paré wuñu ci bo ci jigé dama nan yi ci dess yépp dañ cay dem teew ca waaye nag central bi mooy stade Amadou Barry. bi mooy bi mooy ndigal li. mooy ndigal li. dama naan yëpp ay tudd la ngénte yaa ngi nii. <laughs> tabaarkaale barki démb yéen it ñu ngi leen fekk yëmbal. ah ngeen def fa xadaratul jumaa bu am solo. te loolu li fa nit ña teew ndigal moo leen ko may moo tax ma ne sëñ Babacar ndigal rek a wér. ndigal rek a wér ndigal rek moo wóor moo tax kuy njabooti Cheikhou Tidiane. Mm. tënkul ci ndigal. Mm. ndax lépp luy sóob rek yàlla dina la ci defal. la foofu nga ma laaj nag am na ci solo ndax euh, sëriñ Abdou Aziz Al Amin dafa jël xadara bi teg ko ci loxo alxaaji Fata yàlla def sëriñ Abdou bi mu fi jugee waaye nag ku ne xam na ni surtout sëriñ Babacar Sy bi borom na muy sëriñ Abdou muy sëriñ Moustapha bu sëriñ Abdou Aziz Al Amin euh, mooy li ma la doon waxaat dama ciy ñëw muy ndigal euh, keroog bi ca demee ca moom di di ko wax xadara bi dafa ni bu ngeen toogoon sax yéex ma def xadara bi kon nga xam ni kooku dafa jël cëram. moom Serigne Moustapha moom Serigne Moustapha bu Serigne Abdou. moo ne bu ngeen yeexoon def xadara bi ah ma jël ko wut ñu ko def kon nga kooku xaarul ku ko yëgal xaarul ko def moom ci ndigal lay tënku te ndigal loolu nag mi ngi jugee ci bàyyam Serigne Abdou Aziz Al Amin kon tabaarakàlla kooku xel dal na ndax ki nga xam ne tey jël nañ cër ah di la ko yëgal si nga gën ñoo bëgg. li nga xam ne tey sa bàyyi moo ko fi wante nan sëñ euh, sëñ Babacar. Mhm. nan waxtaan gis nga sëriñ Abdou. Mhm. lii cëram la. gis nga ñu bari ñi ngi xadara. Mhm. ñu bari ñi ngi lal malaan dëgg la ñaan la. waaye nag ci xadara tey bu ñu demee ba di ko yaatal ba dëkk bi kenn ku ne di ko yëgal kenn ku kenn ku ne bëgg koo def. ah cëru sëñ Abdou la. moo tax képp koo xam te ne yaa ngi def xadara wala nga koy organiser dama bëgg nga dellusiwaat ci ndaal yi ndaal yi mooy kan mooy abunaaw xadaratul tiijaan nag. mbir bu sottee kenn ku ne ne maa moom mm. waaye ku ne nag xam na cër bi fi mu jóge cër li nag mi ngi jóge ci alxaaji Fata Sarr mm. sëriñ Abdou Aziz Al Amin jox ko wax dëgg yàlla nag kilifa yi nu seet yëpp seeti euh, la rek ki dem rek ñu ngi seeti mm. euh, sëriñ Madani taal nga xam ni kooku boo nee njabootu Cheikh Oudou Tidiane rek yaakaar naa doo ko ci génne tabaarkalla keroog bi nu demee di wax mu ni jarul wax mbir mi sunu mbir cër bii sunu cër la bis bii sunu bis la te bisu ñaan la kon bis bi képp kuy kilifa wala képp kuy autorité tabaarkàlla ñi ngi cay dem di ci waxtaan yow te buñ ca demet yaa ñuy gën a bëgg bis bi macha allahu rabbi kon nag am di wax na loxo kàddu gu am solo dafa ne ndigal li sëriñ Fata Sarr moom la ko sëriñ Abdou jox kon képp kuy xadara ñëwal nga rangé wu ci ab naaw ndax xaar Fata ndigal li tabaarakallaahu xatal la ko ñëpp ci bokk kon nag ñu ñëpp li jot mooy li jaadu mooy ñu ñëpp ñu àndandoo ci ndigalu sëriñ Abdou boobu ñu ñëpp ñu wéyal ko waaye kenn kenn bu mu beru di def sa yëfu defee ñu ngi koy bàyyi xel ndax am moo ko wax te lu la ñaan yal na yàlla barkeel am di kàddu yi am na solo Pape organisation bi fan ngeen ci toll ci wàllum média bi ah ak wàllum organisation bi biir terrain bi nga xam ne stade bi ku ne xam ni am na organisation bu am solo fan ngeen ci toll. waaw Babacar loolu moom dañ ci gën a sawar. di jaajëfal am di ci kàddu yi am yi. vraiment bég nañ ci moom. Euh, organisation moom. yow sax da ngaa baax di ma ko laaj rek waaye yaa ma ko gën a xam. ndax jàmbaaru fàkk tëdd nga ci. lépp loo xamante ne ndox la mm. wala nit di ko jëfandikoo moom jëmm ji tedd ji toog mooy ànd ak équipe di ko séddale ci stade bi mm. gisu stade bi moom jëmm ji toog du sol du sol yére du sol yére mm. mënoon na sañ sañse def dara dara ndax dara da toog waaye day sol tiset sol pantalon di séddale ndox huit ci suba ba xadara bi tas bu paree mu toogaat kon kooku gënuma ko xam organisation bi daa baax di ma ko laaj waaye Babacar. Mhm. gars yi bi ñu defee seen CRD bi. Mhm. Euh, police ak gendarmerie ak mhm. sapeur ak ñoom ñëpp bi ñu ñëwee daje waxtaan nañ. bon ci biir stade bi. ni incha allah dinañ ñu ubbil foofu ay buntu. dinañu sampal foofu ay robinet xam nga. Euh, dinañ ñu taalal làmp yi. dinañ yaatal daal. te ñoom ñëpp kenn ku ci ne dina joxe sa sa sa sa sa la nga am ba mu jeex ndax police rek yaa ngi dégg ñu ne daaw li ñu indi indiloon ñu defe naa ñu ngi ñu joxoon daaw su ma juumul trois cent policiers xaw ma quatre cent mm-hmm. mais ren nee nañ dañ koy doubler minimum ñu indi huit cent wala ñu indi mille événement bay toll foofu parce que moo toll noonu mm-hmm. parce que damay wax ne événement bu toll ne xadara bi ci Dakar Dakar ba Dakar daj mm-hmm. xadara bi mooy événement bi nga xamante ni moo fi gën a rëy te événement boobu nag journée Cheikhou Tidiane la ndax li ma la fàttee wax mooy ren day alaa dawme ndax ñaari xalifa yi nga xamante ni tabaarakallaahu ñoo bàyyeekoo fële dañuy ñëw incha allah ñoom dañuy ñëw shérif yi nga xamante ni tabaarakallaahu ñoo jóge Fès mooy Mouhamadul Kabir day ñëw Mouhamadul waaw Zubairu Zubairu dafay ñëw xalifa ba nekk biir ci biir rawdu bi ak ki nga xamante ni mooy xalifa cheikh bi ñoom ñaa ñëpp dañuy ñëw ànd kook xalifa yi nga xamante ni ñoo nekk fii ci réew mi ndax dem nañ dañuy dem nañ Njaasaan dem nañ Canaba dem nañ Kaolack dem nañ fépp foofu yëpp ñu dem nag sëriñ Abdou moo ne woon nan fa dem pour ñoo ñëpp ñu ñëw ci bis bi ndax ñu xam ne bisu Cheikhou Tidiane la ñoo bokk Cheikhou Tidiane ñoo bokk Cheikhou Tidiane sëriñ Abdou dafa ne bis bi du bisu Alaaji Malick déedéet du bisu kenn bisu Cheikhou Tidiane la kuy njabootam yaa ngi ci biir kon nag moo tax liggéey bi rëy hmm. xam nga wàllum organisation bi hmm. fi mu toll nii base bi ñu jël hmm. ñii ñi ngi naan base bi huit cent mètres la ñii naan six cent mètres la ñi naan 1000 euh, mètres la. Hmm. xam nga kon loolu baas bi rek baasu 1000 mètres xam nga ne du lu hmm. ndaw. déedéet déedéet déedéet. ci biir loolu. Hmm. fi mu toll nii ñu ngi ci euh, euh, nu ma la ko mën a tuddee tele yi. waaw média bi. mooy bàyyiwuñ benn télé. bépp télé wala bépp site. bàyyiwuñ la parce que yaa ngi ci biir mm. télé yi ñoom ñëpp dem nañu waxtaan ak ñoom mm. signé ak ñoom contrat mm. télé yëpp en direct lañ koy def tabarakallah waaye man bis bu set man la wax ne la Babacar man daal tàkk-tàkk daal seen doyuma ci billahi dëgg la ñëw rek tiim rek su fekkee ko fekkee ko. Mm-hmm. loolu mooy lu wér li waaye daal du ma ko kal ci télé courant mën naa coupé dog-dog mën naa am lu ne mën naa am. sëriñ fi ngay toogal sax surtout Cheikh Tidiane yi ngay toogal ànd ak ñoom ci wasifa bi ak mbalaan mi loolu rek jar na nga déplacé wu ñëw ci stade bi. sëriñ Moustapha moo wax ma dégg sama sëriñ moo ni. Mm-hmm. bis boobu surtout Cheikh na Tidiane yi ku ko gis sa yaram aram na safara te set war cee ñëw. ànd koog ànd koog suñuy kilifay Tiwaawan. allahu akbar <laughs> loolu loolu baalu kenn ëpp naa wuute kenn du ma ko nettali koy fataa la. Ah, mooy sept sérif yi. Ah. dañ leen a daggal ay billets ñu ñëw te ñoom ñëpp set première classe la toog première classe xam nga ni cher na. cher na lool. sept sérif première classe ñu ñëw ba pare nga wutal leen hôtel ñu nekk ci kon ku ci dugal sa dërëm ci xadara bi. sa aajo faju sa aajo faju na biir ak biti sagam ñun ñu ne ci organisation bi ñoo xam li ko saf kenn ku ne ne ñi ne la génneel sa alal def ci nga génneel sa alal def ci ba pare te bu réunion jotee nga ñëw bu liggéey jotee nga liggéey parce que xam nga li ci nekk moo tax tabaarakallaahu mi ngi noonu kon boo déggee loolu nga xam ni kon événement bi événement bu mag la événement boo xam ne événement profito la événement nangu ñaan la wax na ko léegi ñaari sëtu Seexu Tijaan xalifa yi ñuy ñëw te loolu jombul lu muy am ci jotaay ñaari xalifa Seexu Tijaan ñëw toog ci mbalaat mi ànd kook seen i rak ay surafaay yi kenn mënu leen lim ci ne ñu toll ñoom ñëpp kenn ku dekk bëgg a ñëw ngir sauver jaam ñi ñëw ngir faj aajo yi tabaarakallaahu ngir seen barke maam Seydunaa Muhammad mbokk yi bis boobu ñëpp kenn waru ko wuti ñëpp ci war a teew ndax bisu profito la bu ko defee le 17 lay doon mars fii ci stade Amadou Barry Guédiawaye Alaaji Pape damay bàyyi nga woy sëñ Babacar même bu dee 5 minutes bu ko defee incha allah rabbi ñu mottali daal di tëj incha waaw foog ñu bàkk nag borom bonakaare bi nag ndax nag xam nga ni ziar général mi ngi ñëw te le 12 la xam nga yëf yi dafa ala daw dañuy def ziar général le 12 mhm. le 17 ñu ñëw def xadara bi ziar général ku ne xam na ne sëñ Babacar la. Mhm. waaye xadara bi sëriñ Abdou moo doon lu sëriñ Babacar si. loolu lu wér la loolu lu wér la. loolu lu banaan ni fa mbay. Mhm. dootu gëj waawono. cey kumar banaan ni fa mbay. nootu géej Tiwaawono waaw tey kumar banaay ni cambay nootu géej Tiwaawono tey kumar banaay ni cambay dootu géej Tiwaawono waaw cey kumar ba naan ni fa mbay dootu géej Tiwaawono boo mare ba naan ni fa mbay dootu géej Tiwaawono waaw cey kumar ba naan ni ca mbay dootu géej Tiwaawono cey kumar ba naan ni ca mbay dootu géej Tiwaawan gay nan siyaare ay ca ñu dem gay nan siyaare ay ca ñu dem bu ndigëj kuleer la asafane andi dem ti waawono waaw ti kumar banaani cambay dootu gee ti waawono ti kumar banaani cambay dootu gee ti waawono gay batu diine wote na fi lampi diine takk na fi yoonu diine talli na fee jaar si leen Tiwaawono waaw ci kumar banaani cembay dootu géej Tiwaawono ci kumar banaani cembay dootu géej taw na ko fi géeji leer yi bawlu ko fi gaalu sunna ko seneve bor bi mooy Tiwaawono waaw ci kumar banaani ca may ba tigee Tiwaawono waaw fajuk aajo gaaw na fan bay gay fajuk aajo gaaw na fan bay gis wu dàqu gaaw na fa mbay laaj ko gaay yi daan dikke mbay fii ci biir Tiwaawono waaw ci kumar banaani ca mbay ah. tige Tiwaawono ci kumar banaani ca mbay tige Tiwaawono waaw jëmmi mbay see laqo na tey waaye cër ba genn fa tey tey la sax gën a aar wóor na waati waawoon na. waaw ci kumar banaani camay da tukkee ci waawoon na ci kumar banaani. jóge Tiwaawan waaw bëgga mul nga ñëw ca ziyaar ba gis nu la yee doon Maodo bee ko koyo sag bi feeñ Tiwaawan waaw ci kumar banaani ca may nga jóge Tiwaawan عمر بنان جنبي لو تجيت يوانا موتاك من حوادث الخير لا تنسى ولو بعدت أكرم به وبما من أجل تاتي بابا كر خموني سرين بابا كرسي بوني ترو دومبو دي كوزيار alaaji abdu nee na bu ko ñooxu te loo wax da koy dégg ndax napp yaa farax إذا زرتم لا ترفع أصوات عندكم فرحكم أحوات من أعظم الوسر نيسو نينا عندك أي تجين تورمال سرين بابكر ndax boko war malul sey bir xoteku allah wa xurmatuhu inda ilaahi azimatun wala taxtikuha zaaka yubdi ila alxusri xanaa xamoo ni sëriñ Babacar soo bëggee sa turandoo sëriñ Babacar wallaay ndeysaan ndax alaaji Abdu na su ngeen boole woon seen pas-pas ci sëriñ Babacar ndeysaan ma jël sama pas ci sëriñ Babacar suma ko tege balance man alaj abdou sama tiofel daniel sen tiofel koku xamna Serigne babakar billahi motax Serigne Cheikh niko bay sulu ñu la ci bir bamel bay ci bir xol yi lañ la sul xol bo xar fek Serigne babakar loze ko lam yasuru bi xiyaabi fil xabri غل غاب من سكن قلوب قليلا لا لا وفي أجوادي من ذاهد لو غاب أصبح حياته حتيلة تلك الآيات والآيات جمة لم تعط في أيامها تهكيلة ما تخمني بايلن دورنت سامب من الكلام من جناهم واي باب كسي من كلام من جناهم نخفل عصر عصرك إن أمرت فلا يراه إلا متعة بكرة وأسيلة سرين بابا كرمتنا باي سرين بابا كرمتنا مام سرين بابا كرمتنا أنندو سرين بابا كرمتنا خريب سرين بابا كرمتنا سوبة سرين بابا كرمتنا إمام سرين بابا كرمتنا وولري سرين بابا كرمتنا سرين أبون لا أبي لا حبيب لا صاحب لا وأقل wa sayyidun wa imaamun zo karamati ñëpp way na mbay ci melo ñëpp way sant mbay ci jikko kenn desul ku nay woote na yaay mbërum Tiwaawono Sëriñ Babacar Sy mooy mbërum Tiwaawono alaaj Pape Sylla jërëjëf da nga tagg góor gu baax koo xam ne dafa ragal yàlla Sëriñ Babacar ku mënoon jaamu yàlla la alaaj Pape Sylla Serigne Babacar dafa wax ju rëy joo xam ne képp kuy ku ko dégg war nga koo sopp te gëm ko muy moom Serigne Babacar dafa toog Tiwaawan ne musuma mooy yàlla kàdd googu du ñëpp ko sañ wax ndax mooy yàlla dafa yomb waaye Serigne Babacar si moo toog ne man Babacar si musuma mooy yàlla loolu nag tabaarakallaahu du ay wax loolu nag du ñëpp ko sañ a wax ku ko wax ah tabaarakallaahu nga gis ko moom sëñ baabakar moo toog wax ne musuma mooy yàlla kon nag Sidi Faagay dem ma ca jawaar yàlla gën na koo soppaloo bi jaay Seydunaa Muhammad sallallaahu alayhi wa sallam wax naa ni léegi bi ngay way alaaji duut kenn mbay dina bëgg waaye soppe duut kenn mbay yëpp dinañ bëgg ndax soppe yëpp tabaarakallaahu moom alaaji Pape Sylla mii ko sëriñ Amdi Moustapha tabaarakallaahu ñu koy doxal yal na yàlla fay leen ci barke Seydunaa Muhammad tey ñiy seetaan Warkha TV yëpp bëgg nañu ci ni nga taggee yonent bi waaye ni nga wayee sëriñ Babacar alaaji Moussa Amdi ko defee ñu mottali rek te daal di tëj jotaay ba tey jii am na lu ñu fa sàttoo maanaam kuy ñëw am na heure boo war a ñëw ku ne xam ne jotaay bi ñëppay ñëw région yeeg dëkk yeeg ñëpp fu ab naa wu nekk day ñëw ci xadra bi waaye tabaarakallaahu nan nañ la ñuy ñëwee ñii ñuy dugg ci àll bi am na fu ñu leen di dalal aussi tamit kan la ñuy dugg ci stade bi ba pare bu ñuy ñëw ci stade bi lan lañ war a sol yooyu yëpp bëgg nañ nga leeral ñu ko incha allah. jërëjëf sëñ Babacar ñu ngi nuyuwaat sunu télé bi muy Warkha TV euh, li ma la ci wax rek euh, dafay am yenn. site yoo xam wala tele yoo xam te ni euh, seen image dafa baax di génn di wane mm-hmm. te tabaarkàlla kii bokk na ci kon yàlla nañ ko yàlla ñaanal yàlla mm-hmm. yàlla gën ko yokk euh, laaj nga lu am solo mooy ñiy ñëw Babacar ñiy ñëw ñoo la gën a xër ñi ni fekk si ndax ñun ñi ngi ci kër yi di dox di seeti kilifa yi mais ñoom xotti nañ seen yére bu weex ba toog solo mm-hmm. bu ne leen prix ñu ñëw kon ñoon wàcc nañ ndax ñoo gën a bëgg xadara bi Euh, Pape Serigne dafa am point bi mu laal léegi. muy ci wàllu ndox yemoo ci wàllu ndox rek da nga yem ci wàllu set set. te ku ne xam ne ni jabootu Cheikhu Tidiane dafa làmbook laab dafa làmbook set mm-hmm. keroog bi nuy waxtaan li nga jëkk dugg alxaaji Babacar mm-hmm. mooy satala te taalibe Cheikh xam ni buy xadara day laab day jàpp tabarkalla te kooku yaa ngi ci côté boobu ci wàllu set yaa ngi wax eau de ak mboolem liy xeet liy jëm ci cell mm-hmm. alxaaji Babacar keroog bi ñuy yaa ngi matuwaay yooyu ñu matal ko pour nga mën a taxaw kon tabaarkàlla loolu dana la ciy sant ah ñi ngi wax nag euh, képp koo xam ni yaa ngi dëkk lu wër dakaar 15 hmm. ah, heures lan bëgg stade bi du ma ne sax stade bi fees hmm. ndax euh, xadara bi wooteetul naan ñëw leen ngir mu fees déedéet hmm. ndax dama ne xadara bi ah, ku teelut a ñëw yaakaar naa doo am foo toog xëy na bëgg njabooti Cheikhu Tidiane yi gis image bi mais du woo mbooloo moo tax ñu invité ay télé di woo ay si déedéet mbir mi mbiru yàlla te dama ni kuy woote ci mbirum yàlla jarul jarul propagande ndax mbiru ñaan la mbiru diine la mbiru lislaam ko doo ko ma la sëriñ Abdou dafa waxoon ni dama bëgg njabootu Seexu Tijaan yëpp ñu dajaloo ci benn bis ñoom ñëpp kenn ku ci nekk lal mbalaan bi ñu bokkandoo tudd yàlla jullit ci Seydina Muhammad daanaka symbole boobu moom moo tax ñuy def xadaratul jumaa bi jërëjëf moo tax ne alxaaji Babacar kon fekk nga ma ci kàddu yi kon dama naan kuy ñëw gaaw leen ñëw ci yiw yi gaaw leen ñëw ci xéewal yi ndax loo xamante ni benn at la yaakaar naa kuy jullit waroo xaar bis bi rëcc la Euh, te tabarkalla ñu ngi koy sàkku te nit ñi sax njabootu Cheikhu yi xam nan ko mm-hmm. muy image yi gën a rafet muy kuy ñëw na nga sol lu weex tàll mm-hmm. man damay bëgguma ñu woote xadara ngay njabootu Cheikhu Tidiane di sol lu róobaatoo bëgguma loolu mm-hmm. solo lu weex tàll ñu taaral jotaay bi ñu taaral jotaay bi. toog toog bi yiw. Mm. discipline. Mm. Euh, nga baal ma am ci ci lu ma ci profité Pape si la da koo wax. ci mm. wàllu sécurité. Pape dafa lim rek. waaye nag dafa am lu ci gën a garaaw lu ci énervé. dafa am tey ay civil yoo xamante ni. mais lu weex la ñuy sol nekk ci suñu biir. kon ngeen def attention. mel na kuy xadara. waaw mel ni kuy xadara fekk ñooñu. ñoo ñi ngi xadara ñu ngi am ku ñuy xool. mais ñi ngi am lu ñuy suivre. kon pos poskat yi. moytu leen am na ñu di seen suñu biir kon nga xam ne xadara bi doon koo def rek waaye nag dañ ci jël matuwaay mm. ndax boo xoolee xadara bi mm. santé dugal nañ ko ci biir mm. képp koo xam te ne tey sa bopp mi ngi métti wala dara maanaam lépp luy matuwaay rek lu doomu aadama di soxla rek doomu aadama di soxla rek ah Babacar xadara bi jël nañ matuwaay yooyu kon daal nan xam ni ah, ngeen waaj ko te pare ko te tabarkalla te xam ni nag ay shérif ñoo fi ñëw ñuy surtout rasulillahi di njabooti Cheikhuna Tidiane ah ñooñu nag xam na yaakaar naa gis leen rek jàkkaarloo ñoom rek mbégte la texe la kon na ko ñëpp wàcc waaye na ko ñëpp pare sànq maa ngi dégg ngay wax naan tabaarakallaahu nañu teel a ñëw ku teel nañu doo am place ñi bàyyi seen kër seen añ yeeg yooyu ndax stade bi am na ay xéewal yoo xam ku teel a ñëw di nga ci mën a xéewlu waaw sëñ Babacar loolu nag mm. euh, tabaarakalla liñ ci liñ ci liñ ci wut ci ay matuwaay sax mm. euh, ren dafa gën a jéggi dayo mm. ndax boo xoolee daaw wàllum xéewal yi muy wàllu xéewal daaw li def ci ay nag mu ñu ko waññi daaw pli ñu ngi doon wax ay deux cent mbanak te yooyu daa daanaka ren dañ ciy gën a jëlaat matuwaay gël ciy jël organisation boo xam te ne tey képp kuy ñëw mm-hmm. ah di nga lekk ba suur di nga naan ba màndi bu ko defee nag 15 heures ñun ñëpp mu fekk ñu ci xadara ba bu ko defee nag ñu bàkk yàlla bàkk Cheikhu Tidiane bàkk Seydina Mouhamed ah muy bisu mbégte nag alxaaji Baaba tabaarakallaahu am na jërëjëf yàlla na yàlla barkeel tabaarakallaahu li nga ko waxee léegi rek lu yokkuwul wàññeeku waaye fi ñu daan defee xadara bi te alaaji Pape la wax ko muy terrain bi daanaka ñaari terrain yi yaakaar yëpp léegi dañ ciy teg mbana ba mu fees dell ren yokk nañ ci beneen terrain kon nga yëg ne kon xadara bi mu ngi yokk kon nag wàllu xéewal yi ña ñëpp ñëw ku ñëw di nga xéewal incha allah rabbi mën a am place alaaji Pape si la ñu bàyyi la nga daal di tàggoo woote ñi nga bëgg a wax tabaarakallaahu maanaam wax ci xadara bi li nga ci bëgg a wax yëpp incha allah ñu bàyyi la nga wax ko bismillah waa xadara bi moom liñ ci woote rek mooy di wax ni képp kuy ndaw nanga ci ñëw ndax ndaw ñooy mujj ëllëg te loolu nag sunu yëf la di ci woo ñëpp sànq dafa am point bu ngeen laal mooy xadara yi wër na ci gox yi wër na àdduna bi waaye ñi nga xamante ni sëriñ Abdou moo ci joxe ndigal tudde ko ab naa ci tijaaniya ñi ngi ñaan képp kuy def xadara nga ñëw ci Mouhamadul Fata ñu jox la dara. ndax suñu jógee stade Amadou Bari dañuy wër di joxe xadara yi. bu bu demee ba at mi jot ñu daje stade Amadou Bari. loolu yomb na ku ne yaay organiser sa bopp. kon nga tënku ci mbooloo mi rek bañ mu am pëccëxoo moo tax ñu ciy woo nit ñi. waaye ndigal li moom jub na ba pare. bëri ko ci mbartal buux mu dem. ñàkk buux mu dem. te damay wax ni bëri ko bu fees. boo ko sànnee ci mbartal. jël bërigo bu amul dara sànni ci mbartal. waaw bi amul mooy ëpp. bi ëpp bruit. Hmm. bu diis ba nag mooy waa kër Cheikhou Tidiane. kon loolu nañ ci bàyyi xel kon. Hmm. woote wunu mm. waaye li nu bëgg daal mooy ñun ñëpp ñu ànd di bàkk yàlla kon ndaw ñi nanu nan nanu ñëw ci loolu mm. te gën a nàmmaat seen kurus yi mm. ndax dégg nga fataa keroog taxawal nañ mouvement boo xamante ni saytu jàkka yi lañ ko tuddee mooy jàkka yi nga xamante ni par ñaari nit dafay wasifa jàkka yi nga xamante ni dañoo gëj a wasifa yooyu yëpp ñun nemmeeku leen dox leen laaj lan moo ko waral kon nag ñun ñëpp war na noo góorgóorlu jàppale ko ci loolu gën a nàmmaat suñu the xadara bi nag di lazim di wasifa di xadara dul juma mais xadara bi ku ci ñëw laaj na discipline maanaam yar waaw njabootu Seexu Tijaan am na ñoo xam ne doo leen gis te dañuy ñëw di xadara waaw xam nga dafa am bis ma déglu Serigne Abdou mu ne dafa am ñoom dañu dem daayira bi ñu jógee daayira doon fa séddale ataaya kenn ki tëdd gént gis Serigne Babacar mu ko diw ba muy ñett yoon mu ko bu ngeen nekkatee na ngeen daayira na ngeen yaru ndax kaasu ataaya biig bi tuuti nga këpp ma allahu akbar kon xam nga ni kooku. mi ngi mi ngi ci sunu wooteel ñu ñëw. ñu ngi ci sunu biir. Mm-hmm. kon nag loolu nag da ngay ànd ak yar beneen bi ci topp mooy. Mm-hmm. taalibe jinne yi. Mm-hmm. jinne yi ñi nga xam ni duñ leen gis. ñi ngi ci sunu biir. mën nga cee jànni nit mën nga cee joggi nit mën nga cee def nit loo ko warta def. kon Seexu Tijaan ni mu amee taalibe nit noonu la amee ay taalibe ah, jinne. loolu xam yi ñëw wax nañ ko. loolu kenn werante ko kay. déggoo lañ la wax dañ ne la taalibe jinne bi gën a mag. Sëriñ Babacar dafa jékki-jékki daal ne aha ah ah du yëpp la ñuy wax. macha allah waaw ndax léeg-léeg yi nga gaañ nit. Mm-hmm. li ngay nit mooy nga wax ci sa sëriñ loo xam ne lu wér la. nit weddi ko gaañu. kon moo tax yu bari duñ ko wax ci suñuy sëriñ dañ koy bàyyi ci suñu xol rek. te ànd ak moom ndax ku ne li nga ci rek. loolay saf ci sa gémmiñ moom daal ñu ngi woo ñëpp. Mm-hmm. bàyyiwul kenn mm-hmm. amul murit amul tijaan amul kadr amul laay Sénégal la ñu woo. ñaanal réew mi. Mm. na sëñ dafa joxewoon ay docteur dog yi mi ngi tasaaroo ci àll bi. 24 mm. millions laa ilaaha illallaah yi. Mm. salaatul fatiha bi. Euh, jawharatul kamal bi. yooyu yëpp ay lim la woon. tay si rek 12000. lan ci joxe woon te sëñ Fata dafa jël ko tasaare ko ci sëriñu daara yi. di jël alalam di leen jox ngir ñu ñaanal réew mi. damay wax ni maanaam président de la république sa bis bi da ko war a def bisam ndax bis bu gën a rëy bis bi amul fii ci Dakar kon daal kër lépp mënuñu ko wax daal mm-hmm. waaye daal ñi ngi ñaan yàlla yóbbu ñu ci bis ba mm-hmm. nu fekke ko te tal ko kenn bañ a manqué ànd ak yar ànd ak teggin sol lu weex ñëw ñu bàkk yàlla gaa yi ñaan aajo yi faju ñu dem ba déwén ak jàmm incha allahu rabbi kon ba déwén ak jàmm yal nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm waaye ren ñi ngi ñaan aajo bu fa waay indi yal na ko yàlla faj alaaj Pape Sylla bég nañ bu baax ci taxawaay bi wax naa ko léegi bi ñu tàmbali tabaarakallaahu ni nga amee cër ci tagg yonent bi waaye ni nga amee cër ci Tiwaawan yaag sëriñ Amdi Moustapha mu baax mi ñu àndaloon ci waxtaan wi macha allah ngeen disponible lool ñu ànd di doxal xadara bi ñi ñaan kolëla googu yal na ko yàlla gën a sàmm ànd ak suñu rakk yi àndal a Cheikh ak alaaji Ousmane te alaaji saaliwu tabaarakallaahu ñoom ñu nuyu leen bu baax ziar leen waye nuyu nak bu baax borom télé bi muy soxna nday Faatu Warxa tabarakallah nga xamni mom moom serigne babakar la nuyu serigne Mouhamed mi nekkon ci caméra bi momit ziar ko bu baax ndokkel ko mbokk ñu leen di fatali le 4 inshallah rabbi le 4 bi ñu jëm alaaji pafal mu serigne babakar si fi ci Kounoune muy tàkkusaanu Serigne Babacar bu mag boo xam ne tabaarakallaahu la kaat lay doon fii ci Kunu incha allahu rabbi ñu àndandoo taalibi Serigne Babacar yëpp alaji Pape Fall génn ak soppe Serigne Babacar yëpp ñu ànd bàkk Serigne Babacar si bi nga xamante ni tabaarakallaahu kenn du moom la kaat lay doon fii ci Kunu alaji Saliou Diop yor wax way wi waaye Serigne Oustaz Souley Diop mu Serigne Abdoul Aziz Al Amin mooy waxtaan wi tàkkusaanu Serigne Babacar la kaat fii ci Kounoune Alaaji Pape Fall mbokk mi ngi noonu seen émission incha allah rabbi mercredi bi di ñëw asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. sunu maam Maodo ne wa bi saahibi xaatami xaatimi lanbiya fan mun alayhi